sport bi parce que tey dañuy waxtaanee politique ak li nga xamante ni euh, moo di sport euh, parabasket pour ñi ko xamul euh, mooy ban sport pour ñi ko xamul ak naka lay évoluer fii ci Sénégal. voilà donc euh, parabasket euh, sport la comme comme yeneen sport yi juste que particularité bi mooy basket en fauteuil roulant la basket en fauteuil roulant boo ko waxee basket la ak ballon basket bu normal mais ak fauteuil. ok mais pas n'importe quel fauteuil aussi. Mhm. parce que fauteuil yi c'est des dafa am yoo xam ne ñoom ñoo adapté wu pour bas pour pour sport bi donc euh, mu nekk sport boo xam ne existe na Sénégal depuis plus de vingt ans. ah bon oui parce que euh, am benn commission nationale provisoire bu fi nekkoon depuis tous ce temps euh, dirigée par Santi Agne Santi seen Agne monsieur le maire donc ñu koy nuyu d'ailleurs fi mu fi mu nekk di ko di ko di ko di ko jox wàccuwaayam. donc ce qui fait que depuis année yi passé yëpp ñu ngi ci sport bi di di ko pratiquer. Mhm. Euh, n'est-ce pas ak championnat boo xam ne chaque année boo xam ne dafa con constituer euh, quatorze équipes quatorze clubs yoo xam ne pratiquement région bu nekk am na am am na club bu parabasket bon c'est vrai que euh, ñu bëri xamuñu ko. Mhm. dañuy dégg parabasket handisport en général sport bi la ñuy xam mais ci biir handisport dafa am yeneen discipline sportive parabasket bi ci la bokk. donc euh, parabasket voilà comme ni ma ko waxee léegi sport la boo xam ne euh, ñu bëri ñu ñu ngi ci évoluer ay handicap ay personnes à mobilité réduite ñu bëri ñu ngi si évoluer ba tey am na si ñoo xam ne à travers parabasket bi mm. am nañ ay contrat des joueurs professionnels d'ailleurs euh, c'est l'occasion de de de wax si lu mel noonu parce que euh, objectif bi mooy euh, regroupement wu équipe nationale bi nga xam ne dañoo dañu waaj dem benn compétition internationale donc euh, te parmi jour yi nga xam ne ñoo constitué équipe bi tey. Mhm. c'est des joueurs yoo xam ne fii lañ nekkoon fii lañ leen formé ba yàlla def ñu am contrat à l'étranger ñu nekk fa di daan seen doole à travers du sport donc pour wax la ni importance bi nga xam ne euh, parabasket bi am na ko. Euh, am na importance dans la mesure où c'est des personnes à mobilité réduite ñoom ñoo koy def mm-hmm. parce que ñooñu aussi ci société bi la ñu bokk mais pourquoi euh, discipline bi nekk discipline bu nga xamante ni siiwul trop trop fii Sénégal wala bokk ñi ko xam bariwul lan moo tax bon c'est c'est à l'image de, de de de en tout cas de tout ce qui touche euh, les personnes à mobilité réduite hein, de manière générale donc monsieur le président mu ngi nii xëy na si programme am j'espère que euh, en tout cas vole boobu bokk na si li nga xam ne euh, euh, euh, dinañ ko ci gis. parce que aussi ñun ñi si nekkoon depuis depuis des années tey bu ñu toogee gis candidat yi nga xam ne walla suñuy njiit suñuy futur njiit. Mm. seeni ay programme duñ ci sentir lu mel noonu. mooy wane échec bi nga xam ne en tout cas yenn njiit yi am nañ ko par rapport ak ak lu jëm ci loolu donc problème la ñun suñu bopp mënuñu po mënuñu comprendre lan moo lan moo waral. lu tax ñun aussi visibilité boobu nit ñi xamuñu ko mhm. alors que discipline la boo xam ne daf ñuy daf ñuy indi ay yu yu am solo euh, euh, au niveau international mais mhm. malheureusement euh, comme li ma ko waxee léegi rek c'est à l'image de tout ce qui tout les personnes à mobilité réduite